li ci yéeni kay Seydina Omar Gueye lañ ci àndal Seydina Omar baax ma leen sëñ bi baax ñu ngi lay ziar bu baax a baax mba woppulo waaw maa ngi sant nag bu baax a baax tàmbale ko fi yéeni kaay gii di Walf Quotidien yéeni kaay bi di Walf Quotidien di yéeni kaay front de terre bi tey ji dellusiwaat euh, ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar Ousmane Sonko ginnaaw mbiri viol gi ñu koy jiiñ beneen viol dóor na ko mooy mesure barrière yi la violé fële ca équipe sa euh, université Cheikh Anta Diop bu Dakar démb ginnaaw ba mu ne day seeti étudiant boobu lee di Ousmane Sonko te farak moom te duma woon ko ba muy naan yi xewaat tëdd woon ci hôpital moom kooku lee di Ousmane Sonko nag démb ginnaaw ba mu fa duggee di génnaat mbooloo ma ko dar takk na lool ci jamono yi naan coronavirus mbooloo lay bañ yéenikaay bi def ci laaj ne sunu kilifa yi est-ce que doon ndax kilifa ci jamono yi war naa maytu yooyu waaye tamit bu dee ni état bi seen sàggante ci ni di doxantoo ci réew mi mbooloo di ko dar mu mel ne réew mi mu mel mi Ousmane lim leen di bett bi am na ndam seen kaw bari na jëm ci wàllu woowu waaye Ousmane tam mënoon naa maytu jëm ci mbir yu mesure barrières yi loolu di xët mu yaatu ci Walfu Quotidien Walfu Quotidien tamit wax ci nu ñu yore coronavirus bi fii ci réew di Sénégal mën a Abdoulaye Diouf Sall mbir mi da ko def mbiri boppam ministère de la santé boolewu ci ñëpp te mbir mi nag du rek mbir moo xam ne benn nit koy gàddu daw ndaxte ab yan bu diisew wala fi nee na dañu ko jàppoo lii quotidien wax ci Sonko euh, campagne de légitimité la demoon démb ci université maanaam wuti booloo pour euh, dalal xel yi waaye tam pour wan ni fa la toll bu doon day fees boppam nag gis na gann moom kooku lay di Ousmane Sonko yéenekaay bi di lii quotidien mooy ki ñu ko wax. 24 heures Sonko envoie une roquette populaire wan na ni mbooloo moom moo nekk ci ginnaawam te démb démonstration de force la def ci université bu Dakar moom Ousmane Sonko ginnaaw ba muy seeti ab euh, étudiant boo xam ne ci Pastef la bokk ton duma woon ko Ousmane Sonko nag ba mu duggee bay génn li ko dar ci mbooloo doon na mbooloo moo xam ne euh, jéggi na dayo yéenekaay bi ne Ousmane Sonko peese na boppam te dis na gànn Vox Populi euh, Vox Pop wax ci Sonko mu ne bain de foule mu ne contexte Covid bi ak mbooloo mi ñuy bañ Ousmane Sonko jéggi na barrières yi dajale fa mbooloo ci université bu Dakar ngir jàkkaarloo ak nguurug Sénégal wax ci étudiant en masse pour Sonko kenn desul woon bu ci université bu Dakar ngir mën a dem gunge Ousmane Sonko wan ko seen cofeel waaye teg seenu ko jàppale mu mel Ousmane bu doon day natt boppam dis na gan yéenekaay bi wax ci Birame lay Diop mun a feeñ ne moom nag ginnaaw ba jàppee soxnaam ci lii dafa bëggoon a yëngal réew mi Birame Souleye nee na jotagul convocation te mi koy xaar moom Birame Souleye Diop source a wax ni lâchage indigne ndaxte soxnaam la ñu téye même bu jotuloon convocation waroon na dem seeti soxnaam mu mel ne tëru gi koy tëru moo tax mu teggi waaye nag euh, jonge waroon naa tax rek <laughs> moo soxna si nañuy bokkee kër ga ñu jom bokk ko kaso ba ah. loolu yéene kaay bi wax ah. waaye tamit source a wax na rek euh, ci li jëm ci audit fichier électoral ci ci réew di Sénégal mun a fekki fan démarrage officiel bi dinañ ko door. Direct News Birame Souleye euh, waaye nee na jotul benn convocation ak mi ngi ci réew mi te laqatul fenn ñoom moom kookile bi buróom su lay jop leeral rek li ñuy tuuma di teg ci kawam ak kàddu yi ci jëpp lépp gindi na ci yéenikaay bi di direct l'enquête wax rek ci li jëm ci wàllu dossier ñeel sexe ak politique jigéen yàgg nañ kaa jëfandikoo ci àddina ngir daaneel ay góor ndaxte yéenikaay bi di enquête def na ci enquête def ay euh, Euh, enquête euh, maître la Hadj sunu dëkk gis nañ ko bi mu demee ci réewum France Dominique Strauss-Kahn ak euh, ca États-Unis d'Amérique tey jii mbiri Ousmane Sonko mu mel ne sàngara jigéen alal ak yeneen i fem gars yi ci wàllu politique yàgg nañ di ko daaneele seen noonu rawatina jigéen mu mel ne ab mbër la moo xam ne bariwul kàttan waaye ab galgalam day ub làmb les le les échos wax rek ci femme li jëm ci Moustapha Diakhaté ak première dame Moustapha Diakhaté ginnaaw ba mu saxee ci Macky bi moom nag démb ca jàllu ko soxna ko Doudou Wade ban fa daje moom ak Marème Combrog Sow ah <laughs> ñi ngi nii nag politiciens yi ah moom Marème Combrog Sow ginnaaw ba mu yàqee leen lu ne démb daal kenn xàmmewul Moustapha Diakhaté fële ca kër Doudou Wade yéenekaay bi tamit wax na ci daal Sénégal ak ANSD di kuréel gi ñu dénk ngir mu xayma ak a natt ak tam suñ toll nee daal jamono yi ñii di dëkk ca dëkku kaw yi waaye te ndaw ñi nak soxna yi ñu ëpp fii réew di Sénégal màgget yi moom matuñu sax benn million ci réew mi ah, loolu nag mu doon lu doy waar ndaxte mag du yàlla waaye yàgg nag yàlla kon su mag ñi na leen fi bàyyil soxna yi nag bari nañ fi kon ñi ragal takk ñaareel nan gaaw l'observateur <laughs> l'observateur wax ci service de réanimation yi jamono ji ñuy wax lépp ci réew mi boo demee ci hôpital da ngay gis ci jamonoy Covid bi ndaxte lii di lal yi doyul malade yi ña ngay dee benn ak benn mét benn médecin mooy nettali yéenekaay groupe Futurs média bi nee baayam en tant que médecin ci ak kanamam la deewee ndaxte mënu ci woon dara ndaxte amul woon benn jumtuwaay bu mu ko dimbalee anesthésistes yi ak réanimateurs yi te dalal jàmm Touba ak ca Wuro yi ñoom ñëpp def nañ ay confidence yéenekaay bi ci yéenekaay groupe Futurs Médias ci ni sunu kër docteur yi ñoo gën feebar malade critique euh, critique wax ci wàllu rigueur ak transparence ñeel campagne bi ñuy lancé talaata campagne boobule nan lañ war a def euh, ba euh, yaay askan wi maanaam lépp dañ ko war a jubal waaye tam mu doon ay kaddu yu jub yoo xam ne kenn du si sentir ay nax wala dara ndaxte nguur gi li mu bëgg mooy ñàkk ñëpp doore ko ca mag ñi am na juróom-benn fukki at ak lu tekk waaye tamit li jëm ci ñi amee yenn feebar yoo xam ne tey jii lépp lu leen sol rek mën noonu daanu loolu nag nguur nguur nguur gi mën taa matal faw rek mu doon ay kaddu yu dëgg yoo xam ne day tegu ci nopp ko mën a dégg. Sud Quotidien adhésion stratégie nationale lutte euh, contre la Covid 19 vaccination boobule Sénégal ginnaaw ba muy xeex ak Covid bi boobaak tey tey jii mbër mi muy jàkkaarloo mooy na lay def ba yeey sénégalais ba ñëpp ñàkku yéenekaay bi di Sud Quotidien dalasi ji bi jaxate Djibi Diakhaté moom nag di ab sociologue ak kii di Madema Dia di spécialiste ci wàllu communication ñoom wax na seen xalaat digal nguur gi ci yan tànk la war a fekkee ngir rek gars yi mën kaa tàccu. la soleil. waaye tamit polyclinique euh, njiitu réew mi président Macky Sall ci hôpital principal nee na ab hôtel euh, juróomi étoile lañ fa fas yéene teg euh, loolu nag dina tax. jamono yi ñu daan jël suñu kilifa yi di leen yóbbu ca biti réew ñuy faju ji loolu mën a tekk nag Covid na ni ci wàllu wér gu yaram réew mi da cee nasaf lu bari bari ngir nag taxaw ci wàllu woowu le am ay béréb yu xarala te nag nee na loolu ñuy amal ci hôpital principal ci yéenekaay bi de Soleil nekk ci juróomi étoile hôtel boobu le bu paree benn kilifa du soxlaa ci lal ya ci biti réew ngir mën faa tëddi di faju réew mi wax ni Sénégal ci G5 Sahel président Macky Sall dafa demoon Sénégal cotisé benn milliard bu kopparu CFA ngir ñu mën a xeex surte li mooy réew yu ñu wër mais li ñëpp mooy Sénégal bokk léegi nag Sénégal ban intérêt la am ngir dugg ci G5 Sahel moom la yéene kaay groupe promo consulting bii di laaj la tribune La Tribune wax euh, ci enseignant yoo xam ne ñoom dal leen doon rëbb waaye nag finalement mujj nañoo rëcc ndaxte bu deful nank seen bakkan da ca doon des kenn ki nag euh, ay gourdin lañ ko dóor keneen ki moom ay machette di ay jam-jam la ca jëlee ci bopp bi loolu nag euh, di ñàkku karange goo xam ne ñii di jàngalekat yi ci suñu réew du Sénégal ñu ngi koy dund yéenekaay des médias bi tey ji ci la xëy. record indil ñu benn doomu Sénégal bi naan même Palis Mendy ñu formé ko ca Monaco mu nekkoon capitaine bu Nice jamono yi ma nga ca euh, équipe bile di Leeds United fële ca Angleterre moom nag doon milieu terrain bu am kattan yàgg na wax ni moom du football Sénégal France la juddoo xamul Sénégal mais dafa mel ne France ga mu doon xaar xaddi na ca ba bëgg a dellu Sénégal ñu ne mi ngi fëgg bomp buntu tanière bi jour bu baax la nag bu am kattan waaye nag dafa dugg ci wax waxeet stade euh, ak Alan ah mel ne rek Euh, bu buur bu daanu rek buur mooy ki ko daanee la ah. ndaxte Ronaldo ak Messi ñoo fi nekkoon waaye jamono yi li liggéey des bi wane Ronaldo am na fanweeri at ak juróom benn Messi fanweeri at ak ñett Mbappé ak Alan kenn amagu ci ñaar fukki at ak juróom ñoom ñaar ñooñu le jàpp nañ ni daal ñoo nar a folli Messi ak kii di Ronaldo. sunu làmb wax ci Modou Lo ba mu daaneele Eumeu Sène Gris Bordeaux ak Lac de Guiers numéro 2 ngelaw loolu di jóge ca Parcelles Assainies est-ce dina ëpp Ama daanu loolu la yéenekaay bi di sunu lamb def laaj. yàq liggéey incha allah rabbi. Euh, benn waxtu ci njolloor gi ñu faram-fàccee kon mbokk ci foofu lee ci lañu yëkkatee jotaayu xibaar yi ñu ngi sant gërëm bu baax a baax Eumeu Gueye mi fare woon ci xarale gi ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba léegi li ñuy def